بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokki kippaangoog alxaq saabit ñoo ngi leen nuyu ci néew lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu dellusiwaat ak yéen ci jotaay xam-xam yi nga xam ne kippaango gi taxawal na ko ngir jox ko ay woromi xam-xam jël ay tomb jox leen ngir ñu jàngalante ko mbokk yi muy ay tomb yu feccantikoo yu am solo yoo xam ne bépp jullit bu bëgg a rafetal ak diineem war naa xam tomb yooyu ginnaaw ba no jëlee ab jotaay wala ay jotaay jàngale woon lan mooy tasawuf tasawuf googu nag dafa am ay keno keno yoo xam ne ñoo ko yano ngeen ni ngay jaamoo sa boroom mu am ak rafetal rafetal goo xam ne day ànd ak xam-xam ak ak sell keno yooyu nag nekkoon juróom-ñett juróom-ñett yooyu nag bu nekk ci keno yooyu nu jox ko ab boroom xam-xam ngir mu càmbar ko benn njëkk a jël mooy al-usla di beru nu joxoon ko sëriñ Modou Kama yàlla na ko yàlla sàmm mu indi ci ay leer yu am solo yoo xam ne jullit bu nekk mën na cee jariñu lu bare bari sunu ñaareelu tomb di sunu ñaareelu keno nu joxoon ko sëriñ Seexuna Mbàkke gànnaar moom itam moo indi ci ay jàngat yu am solo ak i jàngale ñu di ko ñaan sunu borom sàmm ko te wattu ko sunu tomb ñetteel bii nga xam ne moom lañu war a jàngat tey jox ko moom it ab boroomu xam-xam di sëriñ Moustapha Diop kokki tomb biñ ko jox nag mooy xiif waatu suuf jël xiif boole ko seeni keno ngir mu waxtaan ñu xiif ak i njariñam solo si xiif am ba tax tasawuf tànn ko boole ko ci seeni mbir xam ne sëriñ Moustapha Diop nag yaakaar naa ko topp sunu jotaay yu njëkk ya dana xam kan mooy sëriñ Moustapha Diop kokki du aajawuwaat ñu naan mooy diw ku dugg ci jumtukaayu xarala yi càmbat ko dina ko fa fekk mu nekk ko xamle doy na sëkk rek nu fàttali mbokk yi ni leen mooy borom téere boobu di al umdatul umda loolu rek doy na sëkk ci xamle ko kon Serigne Moustapha Diop kàddu gaa ngoogu nu lay dalal sëkkër foo xam ne foo miin la say soppe ñu la bëgg lool say donga kon bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu taahu wahaabu yaa saqu yaa maliki ni ifta wahabi ya wasukun kun ana de fi azil ajilan bit bisi mahamada din hatta uqima li dini llahi arkana yasir duai tuuba wahmini waqini adalwa watutib bisa maskana aka sama wal aradi wal hawa biya musharikin yarub mashkuna ajib sali bisi min hasiyati muhammadin wallahu li baaxam bana subhana rabbika rabbil izzati masum salaam Muhammad Seyna wax amiin ñu ngi siyaare waa alxaqu saabi wal baatilu saaxiq ñu ngi siyaare ñëpp rek di ñaan yàlla defal ñu tawfeex xam xam naa kon rek ñu bëgg ñu dugg ci waxtaan woowu waxtaane di waxtaane aljuu aljuu ñu ne charité suufiya rawatina nag déggin bi dëgg dëgg te siil te siil ko ci nu ko almadasa xadim yee déggee waaw noonu noonu kon ci la waxtaan bi amaa nag tënk lay doon nopp satun xasiira lay doon bu tënku rek waaw bu tënku mu assala insha allahu taala fi mashiatihi wa bi juudihi wa karamihi wa lutfi kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi jégalu na xam naa am na ay kii mel na lu indi guddi kii te dara néew ca kon ñu siyaare kon rek bu baax a baax nga xam ne kon ñu war a dikk kon ci al al joom al joom xam naa buñ buñ bëggee xool contexte baat bi dana dana ñu gis ne almadrasatu suufiya ni nga xam ne almadrasatu alfiqhiya wal kalaamiya aw tawxidiya ci ay contexte ci la juddoo ay contexte yoo xam ne si ay ay siyaaqa taarixiya wa siyaasiya wa ijtimaaiya wala lañ tuddee aan ci ci fikir siyaasi géopolitique bu ci bëggee xool kon baat bi ci fi mu juddoo ñu tasawuf juddoo nga xam ne ay élément par par élément la ci la ci la ci la juddoo tasawuf ku ne xam ne moom baxdaat la juddoo baxdaat gannaaw gi xewal gi wala ngaa ne lool ci xarnu awal bi ci xarnu saani jom sadis ba xarawat ji wala ngaan lool ci Makka ak Madina ak Baxdaad ak Nisaabuur ca Asia Soxra gox yooyu yëpp xéwal ki dugg fa xol yi daal xol yi daal di fàtte lu bari ci njàngale Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ya'lamuuna zaahiran min al-hayaati dunya comme añu axirati hum hum xaafidoon loo loola daal di dal sunu mbokki su sunu sunu mbokki jullit ñi booba sunu baay yooyee sunu maam yooyee mu amoon ñoo xam ne dañoo daal di gàddaay daw dugg al al bi al fayaafi wal widiyaan ngir rawale seen pas-pas ya ndax xam nañ ne xam nañ ne alfitnatul kubra ba mu amee ci sidna Usmaan alayhi salaam ak Usmaan radiyallaahu anhu ak sidna Ali la xew ca moom alayhi salaam nga xam ne sidna Ali ak Muawiya seen seen xare ba ñu ñetti téeméeri badr yi ñu bokk ci ñoo xam ne xadaro aswati badrin kubra nekk nañ ci taxta diwaay sidna Ali ak Muawiya loolu kon daal nekk lu nekk lu rëy kon loolu nga xam ne nga xam ne ahlul islaam yi nekk ñaari diwaa te ànd ak Muawiya kàngam yi Badr yi yëpp ànd ak Sayyidina Ali fitnatul kubra boobu jur na yu bëree bëree bëri bëri ma ci amul kaam jur na fu lu bëri nga xam ne pas-pas yi lu tax politique not ko ba kenn ku nekk ak def nangam ak def nangam te ak islam rek lañ waroon na wax loolu tasawuf daal di judd moom boo gisee sax islam si sax soo si di bañ ñaar ñi bañ chian bañ suufiyanke yi dañoo bokk genn kilifa ndax jaxfaru sadiq alayhi salaam bokk na ci siwér al imaamu dine yi alaaka boobu am diggante chian yi ak ak ak ak sufanke yi mu nekk alaaka marjian yi seen référence du benn tax na tax na gaa yi for def ñu ñëpp rek ki sallatin waxida kon tasawuf kon juddu na nga xam ne zuhaad yi ñu ñu jiitu woon subanke yi ak zuhaad madrasa zuhaad ca Baxdaad madrasa zuhaad ca Makka madrasa zuhaad ca Xorasaan madrasa zuhaad yi xam ne dañoo zuhdu huna suud li ñu firi fii mooy ab école la rafetul waaqa waaqa bi ñu muy li ñu dund li ñu dund am ñu jóg bañ ko bañ ko nga xamante ne bañ a bañ a bootu ci kenn ku dul borom bi di doyloo li ñuy tóor ci mbedd yi ak sër yi ci aw ñam ñu mën koo jëfandikoo doyloo woyof ci ay yére yoo xamante ne kenn du la mën a yilif nga ne ko abdulillahi faqat waxdahu la shikra nga xamante ne kenn kenn du la yilif ku dul yàlla suufenke yi loolu moo jur seen mbir ma ginnaaw zuhaad yi xam ne kon madrasa suudu madrasa suudu ak madrasa suudu tasawuf dañoo am alaaxa ñu ngi watiida lépp lépp mooy alaaqat rafdul waaqa waaye nag tasawuf moom dafa maarifa moom la juddlu al irfan kële moom amut nasariyat théorie boo xamante ne mooy mooy tënk ay xaatam mooy madrasatul zuhdu waaye kii moom nasariyatul maarifa dafa daal di juddoo ci ci ñoom seen tajriba bi tajriba irfaniyat seen expérience bi daal di jur ay xam-xam zuhdu moom rafdul rafdul waaqa nag bañ bañ rek li am yow mënoo ci dara nga nga daal di cay noppi amoon na na ca saxaaba yi bind sinaa liu sina moya ba loola amee am saxaaba yoo xam ne al murji'a al murji'a du lu may rafdul waaqa ba da ngaa nanguwut li am waaye amute pexe kon waaye madrasatu tasawuf moom daal di am maarifa murji ak ci ca imkaam la leen di fekk wala ci tawxiid la yooyu waaye ñoom it amuñu woon nasariya am na ay sasaraat yu ndaw yuñ fekk yuñ fekk ci ñoom waaye amuñu nasariya daawul juddu ci ñoom wala boog juddowul ci ñoom booba kon kon kon te suufa nga ko élément lay doon par élément nga xam ne xasanul basri yi Seydina Aliou karamallah wacc ak Xasanul Basri yi Xasanul Basri yi bokk na ci suhaad yi moom it moom it suhaad yu mag yi la la bokk te sell lool waaye waaye malikum nu dinaar day ñëw malikum nu dinaar malikum nu dinaar nag ci la xiima xiima bii valeur bii tasawuf al islami juddoo nga xam ne mooy al juumul wasat xiif xiif bu diggu doomu nan la contexte historique bi juddoo nan la malikum nu dinaar naka la judduloo al juum al juumu al wasat nag ñoom lañu wax xiif bu diggu doomu malikum diyaan daa toog nañ ñu takkusaan lañ wax woon toog ci saaxatul masjid bi la ci atub jumaa ji seen seen benn baaxooñ bu tëb morom baaxooñ moom tum naa ab baaxooñ boo xam ne dam miti mburu lañ for ñoom ñaar bu góor ba bu jigéen ba ba noppi bañ ko foree ba noppi dal di borom ja tub morom ja muy muy muy muy jàngat mu ne ah mu ne ah ñaari ñee day ba ñu seetee lee day seen xel dem na ci ci seen morom bi ñu lekkee ba rek rek seen xel di mu ci lu may aljins mooy tëbu ca ñoom mu nekk kon day kon kon juumul wasat xiif bu digg doomu kon mën naa tax ba xel mi kee du dem ca moroom ja mu daal di indi ci biir tarbiya bi li nga xam ne moom la ñuy def tarbiya suufiya bi ñu dugal ci élément boobu mooy élément aljoo joox tawil lay doon sumtun wa jooxun tawilun baadahu saharun tawil ji mooy joox wasat bi nga xamante ne joox wasat boo ko bëggoon a leeral danga naan nga lekk nga xiif xiif boo xam ne dalay fàtti li li lekk aw ñam nga daal ci nga bëgg a mos dara su boobaa kon dangaa war a mos dara soo mosee dara ba fàtte xiif dangaa war a taxawlu kon équilibre am na ci yow tayeloo sawaroo yaa ngi ci diggante bi tayeloo sawaroo sawar gu ëpp sawar gu ëpp defoo ko ndax taaxa énergie moom faaw ñu tafriq ko faaw ñu sotti ko fenn kon bu ëppee bu ëppee faaw mu jur dara safaan ba te taaduliya li ñu wax c'est taaduliya noonu fexe ba équilibre am ci diggante an nafs wa ruux moo tax kon ñu ne kon kat nañ ko xiifal xiif boo xamante ne xelam du dem ca moroom ja xiif boo xam ne dana la sawarloo waaye cawarte ga du du ëpp jëmm ji ñu ne kon aljuuxul wasat xiif boo xam ne dana la dana sawarloo jëmm ji te du ëpp jëmm ji xiif boobu dana tax ba nafsu bi mën a liggéey nafsu bi kan bi mën a liggéey waaye du yàqal ruu gi yëpp mu liggéey kon ak joxal wasata ngoog lu am solo la ci teqantal gi ñi nga xam ne dégguñu tasawuf tasawuf suluki laay wax al irfani leneen la waaye suluki bi dégguñu ko mën nañoo ëppal ci ay mbir baloor juddoo ca te fekk ne dañoo xamul rek kon kon kon kon ñu ko kon sunu sunu mag ñi am na ko ñu wax suñu matasit la bokkoon ci mag yi nekkoon jaarimu ci wetu sëñ bi bu buñ bo xale yi di lekk banaan ah naan lekk la waaye balaa yàqu mu ne mu yàqu moo gën nga yàqu mooy ñoq ñoqal lekk ba suur ne bu ma ko fi bàyyee loolu xelum njaayeen la su ma ko fi bàyyee day day yàqu ma bàyyee day day day forox day nangam dama koy tuuri bu subaa kon lekkal te yow suur nga lekk nga ba fàtte xiif ba noppi di ñoq ñoqal ñoq ñoqal kon moom kooku israaf la kulu wasabu wala tusrifu israaf do do da suñ doa moom israaf firiwaat na ko nu gën a xóot ci ne mooy nga lekk ba suur ba noppi mooy ko yàlla wala xëy suubillah kon al joxu wasat daa bokk ci élément premier yi nga xam ne al murabbi bi kiy tarbiya dana koy def dana koy utiliser ngir taadul ya am bayna ruuxi wa nafs su boobaa lim bëggoon ci jaam bi dañuy wax naan ñaan diw de dafa lefoŋ lefoŋ lefoŋ mooy ko sawar sawar goo xam ne ëpput yéesut ba bu naan bërit day wef toy yaram wi du diis deret ji du diis saa dégg kuy wax am ko muy waxal naan moom kii ne ko man day daanaka du ma lekk wax de dana lekk kay mu am ku ne waaw ku kuy lekk ku du lekk yaram wa day set day set kasaafa kasaafa bi bi mooy daal di di di tinki ko woyof seetlul ku mel ne Cheikh Abdul Xaadir ci ñu ñu ko xamoon dafa lefoŋ
dafa leboon lekk ga bëriwut mu sawar suñu abibu Mbakke ilimaan ku ko xamoon bi mu jiite jumaa ji aljuma bu sëggee da- day sëgg bi tamakun day rukkoo bi tamakun da- day rukkoo ba àgg ba ñu xam ne rukkoo na ba s- ba àgg ba nga xam ne jëmm ji sëgg bi tolloonoon boo tegoon kaas ci ginnaawam gi du tuuru lool loolu mooy rukkoo suñ abi bu mu saa def sama baay dara dara dara wax naan gaa yu bari de xam naa ne danañ sonn sonn ci julli gi ndax ndax koo xam ne dangaa jëfandiku ba sa koll fees suñu abi bu nga xam ne moom dafa lefam lekk ga bëriwut moom mën naa sëgg ba ba ba sëgg ga mat sëgg moom kon ko kon day joom wasata ngoog xamante ne kon jubluwuñ ci xiif rek noonu ndax tasawuf ñoom du ñu defee duñu jëfandikoo lenn lu dul lu tegu ci manhajiya ngir méthodologie soxla wuñ xiif soxla wuñu regg lépp magafee ay jumtukaay la dañoo soxla xiif fii nag xiif boo xam ne moo ko moo ko regg ñooy ràbbaloo seen diggante ruug yi woyof bakkan woyof su boobaa waa ji sawar ba isaa xamu yasaati xaamu kusaalaa du du am waa ji bi muy jóg da daa woyof toy loolu lu am solo la kon kon jox joxoon wasata ngoog sunu su su sufenk yi noonu noonu lañ daa def rawatina ma desul xadim yi kon kon kon bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh waa kay ñu ngi siyaar waat waaw kon de ko ci kon tënk baa nga kon buñ defoon synthèse tuuti léegi balaa jumbul yeneen laaj judd mën naa mooy ne ne nekkat al jooxul wasat dañuy wax suñ suma jooxoon tëyulun mooy al jooxul wasat nga xam ne nag ginnaaw tasawuf al ñu tudde al idxaal wal ixraaj man xaj man xaj yi boobu la ñu jëfandikoo ci xaqu tarbiya sëriñ bi bi tarbiya waa ji moo xam kooku takkoo la moo xam moo xam laxasaay la laxasaay bu mooy que ne ci ne ci wetam lu seex bu dee takkoo mooy que ne que ne mu jox ko ordonnance yi muy jëfandikoo sëriñ bàyyi ci xam dégare dayob dayob kii aljumal wasat bi fan la war a jëm daa daa war a jëm nday joor wala digg bi rek doy na wala dafa war a jëm càmmoñ mi ci ci ci ni mu koy mandaxe loolu moom mi ngi tënku ci mi mi ngi tënku ci ki nga xam ne moo wéri di mooy waanteer bi murid bi nga xam ne dafa am na mel di jëm ci yàlla teg loxoom ci ci moroomam jaamam mu ko gën a xam yoon wa gën koo xam lëgg-lëgg yoon wa moo koy xamal nag nan lay nan lay nan lay gisuñu ko loolu incha allah suñu la si li moom ñu wax dañu nekk li ne loolu tagar la bu lëggoo si suñ mag bi waa këram jigéen ñi jigéen ñi soxna yi takar lañ jox takar yoo xam ne du am pajaas du am pajaas su soxna aw busu ba ko suñ juróom bee noonu ne mu mu mu muy faggu pajaas nga teg ko ca lal ba suñ biir sol foofu mu ne aw busu mu ne ko loolu doon mu ne ko xanaa damay faggu pajaas moo teg ci kaw ci takar gi na damay damay faggu foo ma nigee nelaw nee na sëñ sëñ bi ne ko ah juum naa de damay faggu ab pajaas moo teg ci takar gi sëñ bi waaye loolu yéen ñi sañ a faggu bu ngeen di nigee nelaw aw bu sa jege si mu jege si mu ne ko aw mu ne ko aw mu ne ko aw bu sa rek waaye bu la kenn tee jaamu yàlla ak ko àjjana day benn borom la am te dafa jaay te dafa dugal ko ko jaamuwut aw aw bu sama doon bàyyee fere yi mooy saa ba jënd liggéey bi mun naa dee bu ñu soxla ko bu ñu wàll suñ bi ne ne ko ñiy fay di xamul ñu ko jëfut maam waaw wax naan bu ñu ko yërëmee ci takar gi ñu mu gën a gis yooyu ak addi gi ñu ñuy jox mu di ko jox rek ba tënk ci wut ab bagage moom ne ah waaw awaay la kon mooy ñëw rek kon waneen ne xaaw moom koy tëdd tëdd rek su ma sonn jóg kooku moom moom rek sit la réew nag ko mat lay mu Juuf àndandoom boobee soppeem ba ñëwee di ko seet si bi nga koy seet si boo sama bàyyi ko noonu fekkal kon toppatoo mu laaj njëkk suñ bi def sama bàyyi nee ma ne ko ma ne ko mu ngi fi rek ma ne seet ko seet ko fekk ko mu dem ñëw ci xeer ko jël loxoom sett ba teg ca teg ca kanam nga di raay ba ca dënd ba daal ne ko sot xaw ma ci wàcc nga des kon kon kooka nag kenn ko digg rek daal di roy ko noonu roy ko noonu koo kooka ca ca kàngam ya la kon kon daal fa faaw mu am kon ci ordonnance bi ñu xam jo soxna Amadu asalaamaaleykum wa rahmatulah Amadu waa kay ñu siyaar waat bu baax a baax ñëpp rek kon kon kon dafa mel ne kon al jox wala ko sot kon kon kon leer na al juuxu boo ko dé boo ko dégg ci ma desatu baax wax daal al juuxul wasat lañ ci jublu ñoom waaw maanaam tey juuxoon moo mën xëj la juux la boo xam ne ci ci dafa am xaaye bu mu jëm dafa am xaaye bu mu jëm waaye nekkul rek xiif noonu ci lu dul ci xaaya maanaam dafa am ab jëmu daa am lu lu tax ñu jublu ko ci bu loola jeexee day jeex suuf yank yi danañu lekk buñ ko aajowoo misaal danañu andi misaal ku mel ne suñ bakki buso moom suñ bakki buso foofu lañ koy tëj xam naa nga xam ne ne suñ bakki buso xiifam ba ba bi nga xam ne bi mu nekkee mag sax nee ñu wax na ne man de bu ma xamoon ne ne loppañ gi la ma yóbbee ci kon ma bàyyi woon ko ndax suñ tubaab bi ñu bind masaaliku jinaan ca Mbàkke Bawol ci buse bi foofu ci seen jàkka ja boo demee fa fekk ak garab garab ga foofu la suñ bi doon bindee ñu wax foofu am am nañu wax loola ci ci ab riwaaya ñu ñu wax ne naqu baraay ki bëru sarar ak ndox bu ëllëgati maanaam benn kese yi loolu ci suñ bi di jox suñu bakk bu sow suñu bakk bu sow dafa amoon jëmm daaw ba nga xam ne sax ku jëkkoon la ko rafetoon koo xam ne bu masaa solo ba ba ba noppi ak jar lay takk ci digg bi jar day nuur ci biir bi wala wala bokk naa ñu wax ndigg yi kon waaw ndax boobu amuñ jëmm rek man Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallaahu moom moom it noonu la meloon noonu la meloon waaye bi ñu nekkee ci xilaafa gi dafa daal jeex takk moo ne jar gi mu ngi jëm daa takk ci ndigg di muy noor daa mujj di jeex takk sëñ Bakki Bousso xaaya bi bi amoon jubluwaay bi amoon ci ci ci bu métti boobee nga xam ne mujj na sax bu lekkatee ba suur wéri bi sëñ Bakki Bousso yi nekk li sëñ bi sëñ bi dafa wax mos na ko laaj ñu ne ko Bakki Bousso xam nga lu ma jublu ci xiif bee mu ne ko mu ne ko déedéet mu ne ko mu ne ko dafa am mbooloo moo xam ne bis biñ ci ku ci génn ñu yaakaar ne man a ma bëgg nga bokk ci mbooloo moom xam nga xam nga ñooñu moom safootu safoo lañ waaw kon kon maa ne kon loolu nag la si Abubakar Kattaani wax naan soof mooy safaa woon woo musaade ñooñu moom safootu safoo la du safoo bi képp waaye safootu safoo loola nag nag kon dana dana dana aaje ci nga dox dox yi nu uulu lance mi mi ne rusul bi ndax sëñ Tuubaa dox yi nu kaa yooyu la doxoon moo tax koo xam ne da nga ko yor it da nga sonn lool da da nga deewet da da da nga deewet kon kon kon initial bi kon kon jumaa ngoog aljuma wasat na ci madrasatul Baxdaad baat yi yi ngay dégg jot saw nag ci muridisme almadrasa ci ci xadimiya murid lu ci dox xam naa te xet ma it am nay asaar ci madrasatul Baxdaad ndax madrasatul Baxdaad moom seexu jaalu jaalu xoseer yi kooku mooy tasawu safi ci ñu tey jii dafa taw ñooñu dalee na jox gëdd lool donte ne donte ne dara nekk dégg ci dégg ci ñoom dara ba gis ne dañoo muxaala dañoo ëppal fekk fekk na sax déedéet waaw saa si muxaala la moom ci ci ci kudul seen kem ya ku kudul seen kem waaye bu bëree seen kem loola du muxaala kon joxal wasate googu mooy xi digg doomu ñu jublu ca nag nga am ci entraînement ñu jublu ca nga ànd ak médecin boo xamante ne moo lay traité moo lay teg ci aw yoon wujut loolu la suñu daan woman bi bi ma xam ne tasawu fi na sel xëy mu saxam si xam xar ka moom ñoo yaxu fii bax dira daa wala ji jiw mu si abada képp koo xam ne da ngaa xuus ci lëgg lëgg lëgg lëgg tasawuf te ànd ko sëñ mat sëñ arkan rek ci ci ngay xuus doo génnaa la leen yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Moustapha Diop Alkoki amaan nañu mbégte lool ci yitte ji ak dogo gi ak saa su nekk ngay dox ngir tasaare xam-xam bu leer ngir ñii nelaw mën a yeewu nga dikk ci tomb bi dikkin bu am solo xamle dëgg-dëgg lan mooy xiif cosaanam ci suufiyanke yi li tax ñu boole ko ci seeni principe mooy bi demee bi ñu demee ba jamono xat xol yi fàtt xel yi lëndëm àddina jaxasoo ak dereti nit ñi te nit composé ci ñaar muy physique ak spirituel te warta dundal benn bi rekk yam ci waaye war nay dundal beneen bi nga xam ne moo dox ci digganteem ak boroomam li koy lëkkale ak yàlla moo taxoon mu am ñu jug beru di jaamu yàlla boole ci jaamu yàlla gi li tax xol aju ci yàlla mooy mu xiif nga dikk ci dikkin wu am solo mooy xiif guddi guddoomu goo xam ne dana tax nit ki xelam dem ci yàlla ni nga ko nettale ci Malik ibnu Dinaar na mu gisee woon baaxooñ ba ak morom ja ba nu amul luñ lekk taxaw ne yëggu waaye ba ñu amee aw dogu mburu la nekk seen xare mooy ànd nga xam ne kon niñ ciy jàngate mooy aljinsiya balay am ndekete biir day def dara moo tax léeg-léeg sax mooy yàlla gi daanaka li tax mu bari léegi nit ñi mel ni mala looloo ko waral moom moo tax boroom xam-xam ba yaakaar naa nax ju su ma ko fàttu ndax gën ñaakaa yër lool léegi mu mën ñaafikaat muy wax naan xasbuka maa yuqiimu sulba taqawiyan li kay tutiyow rabba su ma fàttuwut nit ki buy lekk wurta lekk ba kollom fees waaye na jël loo xam ne dina ko mën a tax mu dëgër loo ci ngir mën a jaamu boromam tabaraka wa taala ndax la jiitu loolu yaakaar naa dafa waxoon ni wa man yulhim bi taami himma wal farji foofu jaamihul musimma aw masimma koo xam ne lekk rek a yitteem bu noppee jaxasoo ñor ko li ñuy waral li waral ak ŋàññi yooyu yëpp day dajee ci moom ndekete kon xiif dafay dundal roox dafay tax nit ki xelam dem ci digganteem ak boroomam te loolu lu am solo la nga indi ci ab tomb bu yaatoo yaatoo boo xam ne mooy cosaan la kon loolu tax suufiyanke yi boole ko ci seeni ponk dana delluwaat sax ci xadis ba yonent bi waxoon ay jamono di ko dénk waxambaane yi ci ni ma ko mën a déggee ci wàllum ku jox yitte lekk dana tax xelam di gaaw a nekk ci jaxasoo moo tax mu doon wax naan ku ci mën a denc na denc ku ko mënul na woor ndax woor tamit day tax xel nit ki di delluwaat ci yàlla moo tax sufiyanke yi li ñu def rek saa su nekk ñoom ci bàyyiwaale xel yàlla kon defuñu xiif ngir xiif nii rek mais dañuy bëgg nit ki dem ak jokkoo benn réseau bu dox ci digganteem ak boroomam lu am solo ngi noonu nu lay santaat bu baax te dikkin wu am solo yi yaatal yu am solo yi njàngale mu am solo mi xam naa incha allah dañuy bàyyi mbokk yi ku ci am looy laaj nga laaj ko foofu la ñuy tënkee waxtaan wi di santaat Cheikh Moustapha bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla jotom comme ni ma koy waxee rek ñu ñu tànn ñu jox leen thèmes yi seen i jot yombut waaye nag saa ñu leen soxlaa rek ñu bàyyi seen lépp ànd ak ñun jàppalante ak ñun ci xam-xam kon sant nañ ko bu baax wasalaamaaleykum ورحمة الله وبركاته